mbokk yi ñoo ngi nii si tunnel tunnel bi mais fi mu nekk affaire bi jéggi na daay wa loolu ñaan jéggi daay wa am na fii si tunnel bi waaw lii da baax na moom ñii moom nii ñu def nii baax na xam naa incha allahu rabbi beneen yoon noonu la ñuy def waaw ñu ngi siyaar de naka mu bàyyi naa ko <laughs> bàyyi naa ko ñu ngi siyaar baax baax waaw Ousmane Sonko uh, ngi ñëw waaw <laughs> Sonko ndaanaan bi mu ngi si ginnaaw gisoo ko bi mu saqee masque bi policiers yi ñooy ñëw de dañoo nekk si guerre. ñii siisu ñii siisu fii Sonko kese Assane Masare Sonko kese. solution TV ah rek soxna Batoor day siisu soxna Batoor day siisu day siisu soxna Batoor day siisu. jaar nañ la wër ñun dong lay seetaan di la bëggee yaa ngi def lu wër barki alxuraanu karim mais mbir mi yéeme na de takk leer yi ñëw nii mais mënuñu si dara barki alxuraanu karim li gars yi waxoon ne xoolal ku jur sa yaay juraat ku dee sa yaay juraat billaahi balaa Sonko dara di ko xew ñun lay njëkk a daal. Macky Sall lan la war a xam Macky Sall lan la war a xam xam nga mooy lan. gis nga nguur yàlla moo koy jox su jeexee jeex na moom na gëm yàlla te xam na lépp jeex na amul leneen dafa jeex dafa jeex gis nga demee onze ñu bu ko jaaroo si tunnel bi xam nga loolu loolu loolu loolu mën na nekk ak moom te force la mënu ci dara force la jaar si biir tunnel bi ah, ah, takk der yaa ngi ni daw di ñëw xam naa ni ana Abdou Tom mi ma àndal ana Abdou Tam ma àndal ndeysaan a ah, ndey mbay lii musuma koo gis ma ne ko man de lii musuma koo gis Abdou Top ma juddoo ba léegi musumaa gis lii man Baye Assane Mesere ba ma juddoo ba tey musumaa gis lii Ousmane Sonko gars yi nee nañ ko duggal si tunnel bi mu ne tunnel bi wóorul ndax tunnel bi boo si duggee lëndëm na këris bu ma fa ab garanaat fekkee rek dinaa waye di man Ousmane Sonko kon du ma dugg si tunnel bi gars yi ni ko da nga dugg si tunnel bi ñu ngay naxante ndax dana dugg si tunnel bi wala du dugg si biir tunnel bi mais daal li wér te wóor moom Ousmane si boppam euh, li wér te mooy Ousmane Sonko waa Ousmane ñoo ñoo ngi nii si tunnel bi ñu ngi si tunnel bi yaa ngi cité kër googu ñu ngi si tunnel bi de. Sonko magum jëmm yow renvoyé nañ ko muy ñibbi nga koy nga koy tànnal yoon bi mu war a jaar mais ban Sénégal lañ nekk. mais li muy ragal jaar si biir tunnel bi daa wóor. mais amul droit tànnal ko yoon bi mu war a jaar moom moo ne fii lay jaar du ko bàyyi mu jaar fii. tunnel bi tunnel bi moom lëndëm na de tunnel bi lëndëm. gars yi miis nañ ko yàgg nañ bëgg Sonko bu yàgg fii nii depuis projet moom Adji Sarr tunnel bi gars am nañu fii def parce que depuis Adji Sarr gars yi bëgg Sonko jaar si tunnel te duñ ko nangu ñun patriote yi Sonko du fa jaar su fekkee fii la nar a des bu ñu fanaan fi la ñuy fanaan Sonko daal du fa jaar si tunnel bi duñ ko nangu magum jëm doo ko tànnal yoon koo nga ko dem la procès mi ngi ñibbi doo ko bàyyi mu ñibbi doo ko bàyyi mu ñibbi wala lii lañ ragal lii lañ ragal li yàllaa ko ko may lii xoolal kum la xere da ngay xaru lii yàllaa ko ko may Sonko yàlla kese la ko may si Sénégal lii nii fu mu génn gars yi topp ko fu mu génn gars yi ko loolu doo la ko nangu lu ko yàlla may gars yi ñu dafa seen bopp Sonko Sonko lu ko tee aw bi mais tunnel bi lan moo si nekk bañ koy mu am fi tunnel bi lan moo fa nekk waaw. loolu nekkoon lu normal parce que dox nañ ba fee ba mu TFM amul benn incident ah. convoi bi dem normalement mais la moo tax la tunnel nañ ñu wax ñoom la am si tunnel bi waaw kay mais li eh, moom citoyen la quelque soit citoyen la c'est un citoyen même un citoyen ordinaire yow doo ko tànnal fu muy aw en plus que mu nekk une personne boo xamante ne ay ay ay millions de Sénégalais yu nekk lui lii lan la on est dans quel pays mais nag ñoom Macky Sall na jàpp ni ñun ah notre foi surpasse notre crainte ñun suñu gëm-gëm moo ñu gënal lépp te Sonko mooy volonté populaire Sonko mooy espoir espoir Sénégal ëllëg moom la ñu gëm mu bëgg ko mu nakari ko loolu mënu ko mënu ko dindi si xolu sénégalais lépp lu mu mën na def nag ku mën na def waaw. ku mën na def eh, di ay kàddoom Abdou Top mi ngi noonu nee nañu daal Ousmane Sonko dañ ko wax ni ko. dugal si biir bi nga ñëm ñibbi Ousmane Sonko ni leen ñibbi daal du da may wax fi may jaar naa noppi naa ci yéen mën ngeen ma bàyyi ma dem ñibbi waaye nag du ngeen ma wax mukk ni ma si biir bi ngay jaar moo tax na fam taxaw na na ña nga fay dóor ay grenade Ousmane Sonko mi ngi si RFM foofu lay toll nii mais gars dañ ne ko boo ñëwee daal si tunnel bi ngay jaar moom moo ni du jaar si bi moo tax yéen a ngi di gis gaal yi gaal yi nga xam ne ñooy nappi jën gaal yaa ngi noonu gis ngeen xar yi ay xar a ngi noonu xam naa ne gars yi dañ koy dañuy jaay xar yi voilà euh, mi ngi noonu gis ngeen puus-puus yi gis ngeen moto yi seexul xaddim si Ahmad Bamba xaadim rasul dóor nañ ponkalu garanaat boo xamante ni mi ngi si armée li sumbu junni yi foofu lañ dóor garanaat bi euh, tell ji moom fu waaye toll di ko dégg euh, ay waay lii ba jàmm rek la am xanaa xamu leen ne suba la màggalu Kazu gi ah xanaa xamu leen ne suba la màggalu Kazu Rajab gi lu waral teewaay bi. waaw bëgg waaji rek. Hmm. waa ji ka nee nañu dañ ko bëgg a dugal si tineel bi mu ne leen seen yoon nekkutut si man da bàyyi leen ma dem ñibbi fu ma neex lenn moom dafa yomb nit boo xamee lenn nangu noppalu bañ sonn nit boo ko bañale lu kuy ku yàlla fal moom boo ko bañalee rek sonn nangu noppalu bañ sonn nangul noppalu bañ sonn bañ sonn kese ah, li yàlla def doomu aadama mënu si dara nangu noppalu bañ sonn songoo ca kaw ca kanam kese nangul noppalu bañ sonn waaw ko nee du aw si tineel bi ah non bu aw normal si kaw la war a aw si kaw la war a aw ñu ànd ak moom. lu bëgg mu aw si kaw bi. mais ñun moom tunnel bi wóorut. Ah. tunnel bi wóorut gars yi seen i pexe dafa garaaw na jaar nii mais nag dana xam ne pexem ya pexem nit pexem yàlla ko sut dafa yàlla di fexe pexem nit xaju fa dégg nga fi ñun Ousmane Sonko ñun ak moom ba 2024 incha allahu rabbi dugal ko biir pale ànd ak moom toog Ousmane Sonko. mais grenade yi ñuy taal nii nii nii pour lan la. ah pour dara bëgg bëgg ma aw si suuf rek bëgg gars yi tas ma aw la ko suuf mais dara si kaw la yi la war a aw son normalement. nit xoolal boo ko boo ko defee lu muy def muy ñibbi waroo koo taanal fi muy jaar. mais Mame Mbaye Niang gis nañu moom bi mu génnee daw ñu wax ñun daal dugg otom dem yoonam ñibbi mais kii la tax moom mu génn ñu ko dañ lay yóbbu. mais xoolal Mame Mbaye Niang moom sa waay xamal lan la na xaar kéem ñëw mu feeñu suñu xaalis bii moo gën ñun xaar suñu xaalis bii lañ xaar si moom mu feeñu ko dégg nga ay porte plainte ak ay kii Mame Mbaye Niang moom sa waay na toog fi mu toog rek biiram biir réer waaye asio ñu naka mu alhamdulilah Ousmane Sonko dañ koo bëgg a yóbbu mu ni daal du ngeen ma yóbbu fu ñu ko bëgg a jaarale mu bañ ni du ngeen ma fa jaarale waaw ah, si wax lu may wax nañ def ndànk rek jàmm si réew bi loolu moo gën jàmm daal ngay woote waaw man loolu laa bëgg taal garanaat yeeg ñàngal policier yeeg gone yi sànnante xeer loolu lépp jàmm juru ko loolu jàmm ko gën waaw waaw man jàmm laa ñaanal Sénégal man Guinée laa waaye jàmm laa ñaanal Sénégal. yàlla nañu ko sunu borom defal. amiin amiin. mi ngi nii wax na lu am solo muy jàmm la woote Abdou Top euh, jàmm jooju mu woote nag ah yàlla na ko sunu borom euh, dogal mu daal di am ci réew mi waaye nag euh, yaakaar naa ne daal ni ñu ko waxee woon kii nga xam ne mooy sunu njiitum réew su bëggee jàmm rek jàmm mën naa am kon moom na bëgg jàmm Ousmane Sonko ñëw na procès waxtaan nañu ram ramwaaye nañ ko muy dem di ñibbi bàyyi leen ko mu dem ñibbi Mame Mbaye Niang bàyyi leen ko mu dem ñibbi bu ngeen ko soxlaa waatee daal di koy jël mais Ousmane Sonko saa bu dee génn mbooloo mi ngeen koy booleel mu tolloog mbooleem takk der yi takk der yi Ousmane Sonko taxutoon ñu sàkk leen ñun ñii di askan wi naka la ñuy def ba suñu dundin mën a ñoŋ taxoon ñu teg fi takk der yi kon ñu bàyyi xel waaye nag ñi nga xamante ñuy ànd ak euh, Ousmane Sonko ak ñi nga xamante ñooy takk der yi euh, xeex bi nga xamante ni ñu ngi ko dëkkee euh, tañ bokk nday bokk baay lu lu lu mën a ñàkk la gis nga nii grenade yi ñu ngi nii gis nga grenade yi nii te Ousmane Sonko ndeysaan moom mi ngi taxaw bëgg a ñibbi waaye gilifa euh, gi. noo def ay daw a yaa ngi daw di waaw ñu ngi daw waaw. loolu la mais ñun. Macky nañu jàppale rek. Uh-huh. mu mu manda troisième mandat mandat moom mii moom moo bind constitution bi. Uh-huh. nul n'a de faire plus de deux mandats consécutifs. Uh-huh. amul benn mbindeef bu mun a def lu ëpp ñaari mandat def na defar lu mu gën a rafetee mu bàyyi fii mu dem. loolu woy bu rafet la donc nañu jàppale rek mu bàyyi loolu quoi ñun jàmm ak am la ñu bëgg mhm. suñu président na ko bàyyi mhm. ay procès ñu muy intenté si kawam di ko di ko tooñ mhm. loolu amul benn njëriñ mais lan moo tax Mame Mbaye Niang bi mu génnee daa ñibbi amul problème Sonko di ñibbi problème bi am ni waaw mais parce que ñun ñun amal ñu affaire ak Mame Mbaye Niang ñun président Macky Sall la ñu amal affaire moom moo bëgg moom objectif am mooy teg troisième candidature am boobu la ñu d'accordul boobu la ñu àndul Mame Mbaye Niang amuñu problème ak Mame Mbaye Niang de Mame Mbaye man Mame nekk chargé des élections à Pastef Kër Massar Nord man du ma moroomam Mame Mbaye amul nit man boo demee Kër Massar boo waxee sama tur man ma génn lay la ñu bëri ñu ànd man Mame Mbaye amul kenn ku nekk si ginnaawam mais ñi naan Sonko dañ ko bëgg a jaarale si tunnel bi mu bañ loolu nan la demee embuscade la ñuy bañ kenn dañuy bañ embuscade parce que bu ñu fàttee fii fàtte fële même mun nañ tunnel bii boo nekkee ci biir mënoo génn bourbier la bourbier li ñuy wax bourbier en français bourbier la waaw bourbier kenn dugg si bourbier ba rëcc mi ngi noonu gars yi nee nañ ko daal euh, bu mu yàgg-yàgg ba nga dugg si biir tunnel bi awal ci kaw ñëpp di la gis mbir mi état deful lu dul yabaat nañu respecté sénégalais yi yamale ñëpp ñu may Sonko jàmm dëkk bi instant bii nii euh, jàmm mënu fi am tant que injustice mu ngi am ci réew mi donc ñoom Macky ñoom ñoo war a am yi benn yërmande respecté sénégalais yi ñuy doxal dëgg bu ko defee fii jàmm mooy continuer mais instant bi nag tant que injustice mu ngi fii am jàmm du mës a am problème du Sonko de ñun ñoo doyal ci fi nekk affaire nekkatul problème Sonko ay Barthélémy wala Guy Marius Sagna ñun jeunes ñun jeunes yi ñoo bëgg affaire bi changé soxlatuñ leen. waaw man sànq damaa gis ne lu toll lu mat ay euh, juróom fukki policier wala lu ko daw dugg si biir nel bi. di def ni tànk ak si tànk bi sa tunnel na damaa déggoon ñu ni ah, tànk wër ci aw ma gis bari daw dugg si biir tunnel bi luñ fiy wut. non ñoom seen problème comme nii rek chaque jour ñoom dañuy jéem a provoqué manifestant yi wala Sonko maanaam di ko ut loo yoon te pourtant Mbaye ñaa dafa génn dem ñibbi waaw moom léegi moom kenn topp ko mais léegi lan moo tax ñoom ñi topp Sonko tout le temps nii la. lan mooy problème bi. léegi loolu nag moo dul yoon maanaam mooy que ni ñoom maanaam magi comme niñ ko waxee rek. bëggul benn opposant loo mënul nekk loolu dafa war a changer ci réew mi ñun ci démocratie lañ nekk na yemale ñëpp bàyyi opposant yi ñu am jàmm ñun tamit ñu mën a am jàmm ñun sénégalais yi. non euh, euh, yi nee nañu dañoo bëgg mu aw si suuf dem yoonam gars yi moom mu ne du ngeen ma sàkkal fu may aw si kaw laay aw eh, kaw suuf gi liñ si ragal. te gis nañ ni fees na délégué ki police. d'accord mais liberté xanaa amatul Sénégal. ah nee nañ am na ndax voie bi sens interdit la. bon nag am na droit jaar fi. Mhm. bon ko sàkkal fu muy jaar loo tax maa mbay ñaa wàcc dem ñibbi. kenn topp ko ci jàmm te yoon wa ko neex la la jaar dem mais loolu pour lan xanaa xamul lii ñuy dund depuis l'indépendance man di 1960 laa judd mais c'est la première fois ma mës a gis lii c'est la première fois ma mës koo gis gis nga jeunesse président dafa am lu mu war a waxtaanee ak askan askan bu ñu tëbee di riposte da nga leen di woox a ah, parce que ñu la ñu la faloon bu ñu ba contre la am na lu parce que ñoo ñoo la faloon waaw Abdoulaye Wade toog romb naa ko buntu palais bi gars ne dañoo soxla part bi ñu ne bu ngeen yóoxoo rek dana ko dégg bal billaahi booba vendredi bi mujj si élection ya keroog Lamine Faye moo ñu taxaw ne góor gi nee na lu ngeen di yóoxu lan la lu xew ñu ne ko dañoo bëgg ñu soxla ñun loolu lañ soxla si njiit muy njiit muy déglu réewam waaw ñun loolu lañ bëgg si njiit. noo gisee taxawaayu Sonko si réew mi. kan taxawaay bi day man leen a laa xam xam nga nit nag boo koy bëgg ñaar rek laay laay bëggee nit si ko si ay action ak li muy def si laay roye parce que mas naa toog am ku nekk meeru Mbàkke Moodu Mbàkke ndaw avant muy nekk meeru Mbàkke dama ñëw gars yi daan ne ma léegi dañ ko bëgg a joxoo Iba Gueye lañ bëgg mu njëkk booba gaa ñoogul ma leen lu tax ngeen bëgg Iba jóge fi ñu ne ma noo parce que Iba dafee yàgg ma ne ko yéen bu ngeen ñëwee lu ngeen defar waa ba waa dina par ma ne ko kii yéen jeunesse bi fi nekk yëpp am ngeen i te baa leen ko may mu ne ma loolu de dëgg la ma ne ko man tey bu ma doon joxee dëkk bi dama ko jox mu du Mbàkke Ndaw mu ne ma lu tax ko fee yi mu def moo tax parce que ko association la yor du may hôpital yi ay lal ak kii kii man booba bu ma koy jox kooku laa parce que kooku laa gis mu def geste bu rafet ma toog deux ans ñu ne moo na moo nekk ah, loolu tawfeex la <laughs> jërëjëf am na solo lool euh, Abdou xam naa ne daal euh, li gënoon ñu bàyyi Ousmane Sonko mu dem ñibbi këram dem añi waaw ah, li gënoon ñu bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi këram dem añi li gënoon ñu bàyyi Ousmane mu dem añi ñibbi këram. aa ngi siyaar de naka yi tey waaw mais eh, eh, <laughs> yàgg na <laughs> <laughs> ñu ngi siyaar. kontaan nañ ci yow de nañ bu baax a baax. jërëjëf ñun xam nañ ñu sonko ngay bégee ñun xam nañ bu baax a baax sonko ngay bégee xoolal du la musa mere si leen yaa ngi bégal xol yi yaa ngi bégal xol yi. ca kaw ca kanam. alhamdulilah mën naa sànni kàddu. waaw. <laughs> waaw léegi lu waral teewaay bi fii Ousmane Sonko nee nañu dafa war a dem yoonam ñu ne ko si tunnel bi ngay jaar. non dafa wóorul. lu fi nekk loolu wóorul benn yoon tunnel bi gudd na gudd boo xamee bu duggee fii ku ko topp bu la gazee. te dégg naa daal lëndëm. dafa lëndëm kurus dañu fay lamp yi fay lépp. gaz yi foor na fooraay boo xam bu ñu ko dóoree ñi koy gunge mun nañ lay rey ñoom ñëpp te loolu gënal lu ñu arrangé wuñu lu gëmuñu loolu luñ gëm mooy nañ ko teg ci kaw tali bi ñëpp gunge ko ba mu yëg këram mbagg ak mbagg loxo loxo ba këram loolu lañ gëm loolu lañ xam mais mbooloo ko topp est-ce na leen non mais loolu amuñ choix c'est le choix du peuple c'est le peuple qui l'a choisi mm-hmm. kii amul sikki sàkk buñ ko utalee pexe ñoom pexe bi si ñoom lay këpp nañ ko may jàmm dëkk bi am jàmm buñ ko mayul jàmm dëkk bi am jàmm man de lii mosuma ko nga nit ki ñëw na heure wax ngeen li ko bàyyi leen ko mu ñibbi mu jaar yoon bu ko bëgg yoon bi mu bëgg na fa jaar mu yëg këram loolu lañ bëgg mais boo ko xatalee boo ko xatalee da ngay indi problème parce que nit ñi dañuy gën a génn seen kër yi di ñëw di indi problème ñun réew mi dina wax na solo kontaan nañ baax a baax siyaar baax naka waaw retiré naa ko <laughs> la ma sa daj <laughs> ñoom it ñoom daj nañ lu toll noonu ñii di day ñoom maa mbay daj nañ ko de dañoo waxut rek. <laughs> dama def benn son non ah. au def waaw single bi moo ngi daw si YouTube. Ah. sonko laa ko dóoral quoi. sonko nga ko waaw baax na waaw. gisee nañ bàyyi jàmbur mu dem ñibbi. <laughs> lii ay caaxaan la ah <laughs> Abdou kii nee naa dafa am benn son boo xam ne dafa <laughs> ku dee sa yaa juraat Sonko rek ak mburu mi laa yow lu waral teewaay bi fii waaw lu waral teewaay bi may man patriot la je suis man benn rappeur xam nga man maa ngi dëkk Granf dama ñëw def benn son pour Sonko non au man mandat son bi nag maa ngi koy waaj def vidéo wax si tuuti ñu dégg waaw fi ngeen nekk ñoo leen fi teg bu leen ni jéem a jaay preek troisième mandat bu ko fi xaar jarul sax nga ko fi xaar naan nga lëwal naan deuxième bëgg a toog xaar troisième jógal faxasu may sa morom toog seen système bi def fi paan yow wool Sonko ñëw dépanne ko njiitu Afrique bëgg di ñedd nguur buñ toog si bool du ñu bëgg suur dafay bokk si ñoom si seeni discours jógal fi nga toog balaa nga jël ku li ngay yoot Sénégal yi ñoo la ko gën a xam dañ la bàyyi si biir. macha allah léegi noo tudd pour ku ko soxla. Pigeon la Pigeon waaw moom sama chaîne YouTube waaw. kon mbokk yi Pigeon képp koo xam ne bëgg ngaa dégg lii àggale bi nga dem seeti Pigeon waaw. xam nga Ibou Ndafa xam nga Firawuna <laughs> mais xam nga Firawuna xam nga nee nañ am nañ bàyyi laay mais nañ jàpp Sénégal nañ Sénégal nañ jàpp ne Sénégal nañ jàpp ne am nañ firawuna. Assane bàyyil ma Sonko Assane Sonko mi ngay jàpp nan kon kay. kaay ñu yëkk jéego yi. Abdou Tam lii ba jàmm la <laughs> Abdou Tam eh? plainte bi waxal soxna bu dër démb maa ngi lay dégg nga naan ndafa soxna bu dër nee ko mu wujje nee ko par force dina am ñeenteel nee ko ñun yàlla dañoo xaral baax soxna bu dër eh soxna bu dër nee ko ñun dinañ am ñeenti par par force ne ko dañuy am ñeenti femme par dina wute par force. ñu <laughs> noonu Abdou Top yaakaar naa ni lii lii kenn mësu koo gis lii moom kenn mësu koo gis ah, yaay booy da ngay daw. waaw ah? convoi bi rek. Ah. waaw tey gatsa gatsa bi dañ koy dund nii. waaw duñ leen may lu ñu gas rek lu ñu wax rek ñu suul. plante bi retiré naa ko dama see daaj lu metti waa maak samay morom <laughs> retiré nañ ko de ndax dañ see daaj lu metti metti ah jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax kon mi ngi noonu mbokk yi lu ngeen mës a gis président Ousmane Sonko dafa war a ñibbi ñu ni ko si tunnel bi ngay jaar muy duma jaar si tunnel bi tunnel boo xam ne courant ba day coupé tunnel boo xam dafa lëndëm këris boobu tunnel du ma si jaar waaw <laughs> waaw <laughs> ni boobu tunnel du ma si jaar si kaw laay jaar man bëgguma la lëndëm nay leer gars yi na ko nag gars yi na na lëndëm ah <laughs> jaajëfatee gars yi na na Sonko na lëndëm awal si suuf mën leen du bëgguma lu lëndëm si kaw laa aw léegi nag ñu ngi si lijjanti yooyu xam naa incha allahu rabbi lu si am bàyyi naa ko <laughs> mi ngi noonu ndeysaan xolal lee waaw ñu ngi siyaar de nagamu yéen si jàmm euh, Abdou Top lii Abdou Top lii doy na waar lool Abdou Abdou nañ yokk jéego yi yokkaatal jéego yi dafa mel ne Sonko dugg na teneel bi de kaay Abdou. ba gars yi daa mel dañu koo bëma si waaw <laughs> mi ngi noonu ku dee sa juraat kon na nit ñi dem sëyi waaw na nit ñi dem sëyi man nag li ragal maak tam ñu réeroo ñu ngi siyaar de waaw waaw ñu siyaar de magam <laughs> waaw waaw maa ne yëral ma tineel bi yëral ma tineel bi xam ah karaat nañ ñu de mi ngi noonu xeex bi commencé na boobu ba tey grenade yaa ngi takk xeex xeer bi xeer yi bari na gis nga ko noonu Seexul Xadim Si Ahmad Bamba ah sànni nañ fi ab grenade te grenade yi grenade yu yéeme la yoo xamante ni dina metti sa bopp waaye dina wex xat say bët doo gis ngay teg sa tànk day na waar gars euh, ay ay moto lañ yor xam naa sony bu jóg il faut ñu wutal ñu moto journaliste yi ay moto lañ yor ñi yor ay yat xeer yi waaw ay moto lañ yor moto yi moom accéléré rek li sa morom ay moto lañ yor topp <laughs> te duñ ko fay yaakaar naa waa Dakar TV la ñoom ab moto lañ yor te accélérateur bi ba pare de caméra di takk di jóg rek di takk di jóg waaw dañu amical fii cooki fee lañ jëm dañu amical tey rek. waxal waay amical rek. lii amical beneen mi ngi ñëw. fii fii cooki fee. mi ngi ñëw ñu ne ko si suuf ñu ne ko lan moo tax tunnel bi tunnel bi moom dafa am information tunnel bi dañu fee def loo xam ne. Ah. nekkul lu baax li tax ñu bëgg ko exiger pour mooy wan ne wan ne arrangé wu leen. Ah. parce que kon faaw ñu moytu ñun duñ nangu Sonko mii ñu koy sacrifier. kii espoir la ba noppi sànni tàcc la Macky Sall bu éliminé Sonko mooy moom moo ay jàmm la ñuy yàppee ñun waaye suñu maam yi ñu xeex ay Lat Joor sëñ bi ah ay ku ne ku ne xeex ak tubaab bi ba bañ nootel booba tubaab bi ay ay gon lañ yoroon ay gon di jàmmaarloog euh, Lat Joor yaa ngi dégg teewul ñoom da leen a faale teewul ñoom da leen a faale ñun ñu ni suñu yi moom bu soobee yàlla moom moom lañ am waaw gatsa gatsa ñun suñu réew duñ sàggane benn groupe bu ndaw di ko jël di ñu këli foo révolution day am xeex mënul ñàkk sañu mi daw di ñëw foo ñu ñëpp waa Sonko lañ mon frère man man man maa ma dindi max parce que man du ma lakkatu mooy maanaam jëm ay nëbut yooyu nii comme ça du ma ko def bu ma naree jàpp prison ni jaay ma benn yoon parce que man révolutionnaire la Sonko amul leneen Sonko rek gars sol seen max amul doy ay murran Macky Sall que Macky Sall euh, dafa innocent tamit si man mais ñi nekk ci ginnaawam lay bëgg a sauver mais loolu Macky Sall non Macky Sall président la te ñun Sénégal. waaw bëgguñu mu bëgguñu rusuloo président. musuñu rusuloo président ay président jaar nañ fi lu bëri mais kenn musuloo benn président donc lu ñuy lu ñaan Macky Sall na bàyyi nguur gi. Macky Sall na bàyyi. na bàyyi bale ba lañ koy fekk génnee ko. mu koy neex mu koy naqari. par force la par force la par force la par force la bale ba lañ koy fekk ne ko déjé. Sénégal il fait partie le pays le plus pauvre en Afrique mais Sénégal pour nga am milliard moo gën a yomb fi Sénégal bi mais dañ la nommé tey ministre tey tey tey aujourd'hui tey gannaaw suba nga am milliard nga am milliard mais fan nga jëlee kii nu mu tudd Mame Mbaye Niang de un je me rappelle très bien maman xam naa ko bu baax xam Imama Niang Mamel lañ dëkk Mame Mbaye Niang moom ministre boo bu ñu français mu bañ sawarul parce que déggul français mais anamu léegi am na ay milliards Amadou Ba am na ay encore impôt domaine boo fu liggéey tamit am nga ñen tu fonctionnaire tu reçois seulement un salaire mais lan mooy problème bi nañu bàyyi Ousmane Sonko jàmm Adji Sarr Adji Sarr loolu yëpp Adji Sarr la Adji Sarr bu moom gën a bañ Sénégal tey a bañ Sénégal tey man mii personnellement Macky Sall deful dara mais Adji Sarr man maa koy rey doyal nañ ci moom dem doyal nañ affaire bi noonu la demee ñun dañoo sonn jàmbaar barki Seydina Mouhamed Golo dañoo sonn xam nga ne lii yombul lii yombul rek lii yombul mi ngi kon bineegar bi euh, moom la ñuy waaye di jégalu xam nga rek doon romb noonu kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko bu fekkee jàll na ñu ngi si jégalu baax baax du suñ bëgg-bëgg suñ bëgg-bëgg rek mooy xam lan moo xew si sunum réew waaye nag euh, duñ wax mukk loo xamante ni àndut ak i teggin jëmale ko si kenn rawatina suñ jiitum réew kon ñu ngi bu baax baax Abdou Top mel na ni mbooloo mi génne fii tey waaw waaw waaw ah, am nga lu la man de am naa lu ma naqare ndax ñun dañ ñoo duur ay grenade ba ñuy waaj a daanu ci kàmb yi noonu après ñu dugg ci benn kër di solmo suñ benegar ñu fekk ñu fa jàpp suñ benn nit liñ def nag moom ñu ko fenn ndax mënuñoo fexe fexe fexe ba Ousmane Sonko moom du doon président baye boo ñu rey ñu baye boo ñu def leen Ousmane Sonko bàyyi nañ ko yàlla yonante beeg Serigne Touba Mbacke ak maam Seera Fall moom lañ koy bàyyee ndax sonn nañ trop trop trop trop lu ne daj nañ ko mooy Ousmane Sonko ba nekk lépp incha allah 2024 dina nekk président bi soobee Serigne Touba Mbacke 2024 dénk nañ ko yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba Mbacke nguur gi nga xam ne nguuru sàcc la muy Mame Mbaye Niang ñëpp xam nañ ne sàcc la ndax dossier bii nii wër na Sénégal ñu nar kee jàpp Ousmane Sonko di ko tëj waaye ñu ngi koy bàyyi yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba Macky Sall nag moom sàcc la sàcc moom rek lay mën a àndal sàcc sàcc dong lay mën a fat barke Serigne Ousmane Sonko ca kaw ca kanam ñoo la bëgg ñun ñoo taxaw takku bëgg la jàppale ngir jëm Serigne Touba Maam Seera Fall barki démb la sëñ Fall Fall wax wax joo xamante ne nii ñëpp a ci kontaan képp kuy murid di Baye Fall kontaan nga ci te ñun taxaw na ñun waa Touba Baye Fall ñëpp jóg nañ ngir jàppale la ngir jëm Serigne Touba Mbacké mi ngi noonu kon nee nañu ñu daal di daw wuti foofu noonu ndax waa ji daal ak lu mën a xew moom du aw si suufu tunnel bi si kaw lay aw voilà si suuf si suuf lañ bëgg mu jaar mais moom nee si kaw lay jaar kon ñu ngi leen sant baax di leen gërëm Abdou Top kon ñu yokk jéego yi euh, tase gars yi incha allah. instant yii comprendre doo doon fa ay projectile ba gaañ fi ñoo xam seen tànk yi ñu ngi foofu noonu instant yii yóbbu nañ si SOS bi te pourtant suñ ko bàyyoon mu jàll fii y' a même pas romb na fii dem yoonam. doo comprendre léegi euh, lan moo waraloon ñu ne ko doo jaar si kaw si suuf ngay jaar. ah moo jaaxal ñëpp de. xëy na ñoom peut être ay protocole de sécurité la ñu wax mais sécurité Sonko laa la mu ngi si ñun population bi waaw mu ngi si Sonko moom xam nañ ni bu daan ñoom ak ñoom léegi kenn du ko si def dara moom waaw soxlawuñu seen sécurité mu ngi nii ba léegi génnagul si ñu ngi ko baare nii si te du yoon affaire na te lan lañ doon wax affaire affaire affaire affaire lan privé la loolu lañ doon wax mais ñoom lan lañ si wut fii nii yëpp déployer force de l'ordre yëpp ci affaire privé jërëjëf jàmbaar am na solo am na am na solo xaaral ma wuyu sooy bu te ñëw topp